nataal ñaar ñeent bi yeesu nekkoo ci kaw suuf nit ku ñuy wooye nikodem seetsi na ko woon ci guddi ndaxte bëggoon na wax ak moom te kenn du ko gis looloo tax mu seetsi ko woon guddi yéesu ne nikodem bu fekkee nit judduwaatul juddu bu bees moom du mun a bokk ci nguuru yàlla ci loolu yéesu bëggoon na wax nikodem dafa wara juddu juddu bu bees bi su bëggee bokk ci nguuru yàlla Nikodem xamul lu wax jooju di tontu mu laaj ko naka ku juddu ba màgget ba noppi naka lay judduwaate ndaxte kooku mënul delluwaat ci biiru yaayam bay juddu yéesu tontu ko li juddu ci nit nit rekk la waaye lu juddoo ci xel xel la yéesu di nettali Nikodem bu doom juddoo ci kaw suuf ci ay waajuram lay jóge te dund boobu kaw suuf rekk la amal njëriñ waaye ca asamaan ni ko dem danga war a judduwaat ñaareel bi yoon ci ñaareelu juddu boobu ma lay wax muy juddub xel ci yàlla rekk la mën a amee du di juddub yaram ndaxte kenn mënta dem asamaan te judduwoo juddu bu bees mooy nga nangu yéesu Kirist ni sa musalkat loolu ñu ngi koy tuddee nga tuub say bàkkaar nga soog juddu juddub xel nga bokk ci njabootu yàlla te xel mu sell moomu di bawoo ci yàlla mooy dàq lépp lu bon lu nekk ci suñu biir xol ba noppi xelum yàlla boobu feesal suñu xol ak jàmm ak mbëggeel bu ñu juddoo ci njabootu yàlla dootuñu mën a def lu bon xelum yàlla daf ñuy dimbale ci def lu baax rekk to neex yàlla